di rafetlu initiative bi xam li wax li wudul dara jaamu yàlla bu mag la ba pare def bi nag suñu bopp lañ ko defaraat puisque lépp ci parcelle la jëm ci néew di doole yi la jëm xam nga période bi defe naa ku nekk da ko soxla que jamono ji xaw na metti mbas mi dugg ci réew mi xam activité activités yi bareetul ba tax na lu ñu daan li jëndi sax tey day day gën a jafe xam tax na bu ñu amee initiative bu mel nii xam nga jël li nga xam ne askan bi soxla nañ ko ñu dem jébbal leen ko vraiment lu ñuy rafetlu la du ko def nag ci trou 100 pour cent Amadou Ba xam nga Amadou nekk ci ginnaaw président di jàppale parcelle ku nekk xam na ni képp kuy doom pas yeewoo parcelle loxoom jugul ci yow ba tax na ñun jàpp nañ lu ñu def rek suñu bopp lañ ko defal waaye mais nag ci turam vraiment di rafetlu initiative bi di ñaan yàlla incha allah te yeneen ak yeneen ci kanam daal incha allah. lii pour début la rek ah xam nga lépp ci groupe bi la sosoo muy 100 pour cent Amadou Ba bi xam nga ci la xalaat yi génnee ku nekk dajale li mu am xam nga ñu def lii te yeneen ak yeneen yeneen incha allah mu ci kanam yoo xam ne yu gën a sax rëy lay doon bu sobee yàlla. doo tey nag moom du du bisu làmb quoi xam nga tey moom dafa am leneen luñ fi dajale quoi xam nga muy loolu muy affaire xam nga ay. donc yi ñu a joxe waaw nañu kii ci loolu rek daal. difficulté moom kenn du ko yeneen nit rawatina nag nit bi nga xam ni comme ni ma koy waxee chaque fois rek xam nga amal na njëriñ réewam parce que tey ndaw yu bari xam nga ñoo ngi dund. dund bu mucc ayib ah, ci ci ci moom la ko yàlla jaarale ba tax na ah, dañ koy ñaar rek incha allah yàlla may ko liberté xam na ci tamit président jàpp ñëpp ñëpp ci war a jàpp-jàpp ci xam mu nekkaat continuer ay activité am daal waaye loolu kay ñun ñëpp combat bi man xanaa bokk naa sax si ñu ko lancé parce que ku nekk xam na ni ma mel ak lii xam kenn la ci man ba tax na xam dañ koy ñaar rek incha allah ñëpp ñëw tamit taxaw ci xam nga ba ñu libéré ko daal incha allah. bu dul dara Modou xam nga ku ne xam ne ni c'est un acteur et puis de développement tey bu lu mel nii amee ci digganteem mag président Macky Sall ñu àndee ko ànd bu rafet ba yàlla dogal mu xamale kook Amadou Ba Amadou Ba téye ko def ko ni mu ko def tey ñu taxawal mouvement bu ton ni 100 pour cent Amadou Ba kon yaakaar naa bu réew mi tolloo fii. ñun ñu soxla ñun tamit dañu war juk boole suñuy dem ak suñuy Dakar pour jàppale population parcelois bi yépp message bi ñu leen di lancer rek mooy li ñëpp wax mooy dëgg parce que feebar baa ngi ci dëkk bi te jógewu fi kon nañu jël mesure de prévention yi ci wax yëpp ñu koy def li nga xam ne ñun ñi doon nañ ko def démb ak bërki démb nañu continuer di ko def di raxasu seen loxo respecter distance yi macha allah te jéem a téyewaat xale yi ci biir kër gi ndax nee nañ nañu dund sax ak feebar bi waaye daal moytu moo gën ndax fagaru moo gën faju